dama dégg ne laataa ngay dem ak animation euh, sa garde à vue métti na trop ay malaise ay crise dégg naa moom gars yi balaa seen jàngoro feeñ rek ñu dem garde à vue cave fala yu bari feeñee bi ñu yeggee central ñu dalal ma ba toog feñ ñu notifier ma sama garde à vue mais euh, foofu moom amul ay sumeeku la tekkil sa sénti rek yooyu jotoo ko faa dund am na ku ñëw mu da ngay summeeku ah sumi señ bi waaw ma ak ma jóg taxaw mu ne ma léegi da ngay def kelot. ak euh, survêtement man na ko nag ma ko def man yàlla daa def moom damay bañ nga ne ko doo ko def waaw mu ne ma non fii garda bi la koy def ma ne ko déet li ma sol nii jàllaa bi ak tubéy bi ma sol duma ko summi mu ne ma non da koy summi ma ne ah xana kon ma def yaramu nen muy taatu nen ni la ko waxe sax damay def taatu nen wala ma sol li tàggoon na la fof wallahi man ko so beugé nak nga ñew ma def lolu taatu nen du sol fi yéré ben yoon waye du summi di sol kiloot ak li du ko sol Mune ma graw togal fu bayima ma sol sama bi ak sama. Uh, ñu door seeni enquête. waaw parce que gis dama def ma lolu da fay wuññi sama dignité rek. te jaru ko. Mm. léegi comme que dignité buy dañ la a ah, na dañ mu jeex. Mm-hmm. te na la foofu. Ah, billaahi mais sëñ Baara. nga def fa ay fan nga la loolu du dara ci man mënoon naa ko def. waaw mais nga def ay fan. <laughs> dañ ma euh, tarbiye dañ ma tarbiye yar ma loolu dara garaawul ci man. Mm, nga àgg ci <laughs> euh, ñu mën a jël Cheikh Baara des fois man mooy laa wax. malaise fa ñu ne Cheikh Baara daa malaise Cheikh Baara yóbbu nañ ko fii Cheikh Baara enquêtes yi mu métti woon am danga ko koo attanu toon. waaw xam nga première bi maanaam. mën naa wax nelaw naa tuuti mais deuxième jour dañuy gën a jàpp di indi day dem ba fi nekk dafa xat dañuy waxtaan ba bët set rek continuer def naa daal ñeenti fan garde à vue yoo xam ne wóor na ma ne nelawuma une heure temps bu kole ay sàcc nii rek nelaw man moment juin juillet bu bu nawet di jub si nag ma nekk nit ko wér parce que man sama papa dafa nekkoon nit ko am asthme grave sama yaay dafa amoon asma grave sama mag bu jigen bi ma topp ci mom asama moko ray donc man fep fu ñuy toxé wala mo am ki rek suma fa nekké touti fu teju rek. Mhm. dama daal di am jafé jafé nokki. ya ngi layal sa malaise bi de. non xawma xam nga malaise bi sax xawma lan la yalla xam nako dama jek jek rek gis ne ma ngi ci ben hôpital ñu may xool ma paré continue suba suñu dem ma gis juste defal ma mandat dépôt dal ma yobbu pavillon spécial foofu la tëddee sama kaso. Mhm. Eh, sa guddi gu ñëk ci pavillon spécial guddi gog señ Bara xanaa yag na dé non yagul guddi gu ñëk ci kasso yagul ci yow. yagul yagul dé parce que garde à vue bi dafa metti won ci man ma ngi doon yek feebar man sax wallahi dama fo woné damay dé nak parce que doon na te doon na yek sama yaram lu bari yo xamné euh ay début AVC la xam nga xawna ma xam ni médecine dara doon naa ragal daal ma AVC wala dara moo tax biñ ñëwee ci vendredi bi après takusan laa fa egsi man bi ma ñëwee li ma njëkk a def mooy nelaw pour mën a nelaw ba doyal. kon yow yëgoo guddi gu njëkk ci président nelaw non loolu ñu koy yëg du bari bu garde à vue moom boo fa yàggee boo ñëwee kaso nelaw hôtel la quoi man dama ñëw rek ñu ne ma sa lala ngi nii ma xëcc sama dara rek départ nelaw ba dallu daal bu baax baax hmm. Eh, mais Cheikh Bara guddi gu njëkk ci kaso nga naan ba ma ñëwee damaa dallu. ñëpp ay dallu kaso. premier guddi garaawul boo ñëwee garde à vue bi da lay xaw a rey. waaye yow Cheikh Bara eh, xanaa sa ndomba gi nga xam ne nee ku ko takk doo dem kaso moom da nga koo fàtte am dañ la ko mënutoon a jotal ci foofu nga newoon. waaw xam nga engagé wu woon xeex bi ba dëgg dëgg nag bëgguma woon histoire bàyyi ma fi. loolu benn la. kon da nga bëggoon da nga bëgg layal ndomba gi. non non du ndomba gi sax maanaam sama ngor mayetuma woon ma toog ci biti te yàlla dimbali na bañ téye ma man doog a jàpp Sonko mais wóor na ma ne su ma nekkoon ci biti ñi jàpp Sonko mën naa maa def lu ëpp ba gaañ sama bopp wala leneen mhm. loolu xam naa ko.